bokki Leewtoo ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax leen ñaanal jàmm di ko sàkk ci yéen tey dañoo Kër Massar euh, ci face à face Gris 2 Reug ma ko gën a xam waaye bokk ci Quench ak Diène Kaïré ñun ñëw tey dajeeg suñu nijaay suñu mag suñu xarit yàgg bégal axlu làmb Kaïré ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay biram di am kontaan lool wax ak ku mel ni yow parce que yow moom nitu làmb nga. te question yi ngay laaj en général dafay am solo lool donc su fekkee ne daje nañ fii tey ñu gi nga si sunu doom ci bés bu tool nii fekk la fi aussi boo ñu si laajee dañ lay tontu donc ñu ngi leen nuyu di nuyu internet yëpp surtout waa Leewtoo production. Euh, Kayre benn question rek lañ lay laaj tey ancien gloire bi moo ñëw indi problème wala nit indi doomam. ndax gis naa ñoom Baba Diaw gis naa ñoom gaay ñëpp daal ah biram bu jën ñëpp ngi fi ci gàttal mais kan moo ñëw indi Diène Kaïré tey. waaw staff bi ngay wax rek moo ñëw parce que ñu nga lum nii rek tey jii ñoom dañoo bokk si Diène vraiment di ko jàppale bu baax a baax a baax a baax parce que tey làmb moo laaj loolu dootul problème papa ak doom mais problème staff la te ku xam staff xam ne staff moom moo géré lépp ba tax ne daal set fas ci moom boo xoolee sax da ngay xam ne am na beneen taxawaay mu ngi taxaw mu staff bi. parce que combat bi am na fu mu lu mu leen jaral xam nañ ko bu baax moo tax tey fu jéem di juddee jóg rek staff bi yëpp koy topp fan si club bi ak staff bi boo xoolee rek di nga xam ne waaw dina am am na changement. Hmm. dafa mel ni daal am na tuuti changement tey eh, ñu war a jeenoo ak ki nga xam ne moom mooy eh, Quench Quench di mbër mbër mu xaw a doy waar di mbëru lebu ah, eh, bu ñu denkee jéen toujours mu ne fogole séeréer waaye kële toujours boo waxee mu ne mbaal mi wala lii wala leneen li wala mu wax ci côté yooyu. Mm-hmm. waaw Diène dafa bokk si ñaari ñaari gox la bokk tey jii euh, dafa séeréer yi maanaam mooy cosaan ga mais lébu léegi lébu gi fa la dëkk muy Soumbédioune parce que boo déggee écurie Soumbédioune rek dalay foo déggee Soumbédioune xamal ne lébu yi la moo tax bu bés waa bu fekkee ne ñoom lébu la ñu yaay nañu xam ne duñu ko parce que Diène si biir lébu yi la juddoo yéeg na wax ne kon mbaal mi moom du du du kële rek koy xëcc non non kële ñun danañu xëcc mbaal danañu joow lu maanaam lu cosaanu lébu di def rek ñun am nañ ko te tey fuy dëkk si Sénégal di lëbu euh, Soumbédioune moo la jur parce que fa euh, mag ñi fa la nekk muy sunu maam Lëg Daawur ñoom ñoom moo leen ëmb nag bépp dëkku lëbu bu ne fii si Cap Vert euh, Lëg Daawur moo mooy seen maam kon junj nag doy na borom xel te ñun foofu lañ bopp rëkk nag magu Soumbédioune yëpp ne suñu ginnaaw ànd ak xale yi comme ni ñu ko waxee fas yéene daal jublu ci bés boobu incha allah. boo bëggee jël Sangomar wala la nga nogo Taaboor mat fa ngoole wa i jungaa jàmbaar jooni jooni bëgg a ñëw jël lëg daawur hmm. est loolu tam dina neex ci kii ñen gaa yi waaw loolu chance la rek loolu mooy loolu chance la àdduna nag euh, cin bokkul cafin xëy na lu ñu yàlla may la rek ñu bokk ci séeréer si bokk ci lébu yi waaw loolu loolu kese la ba tax na nag ah su boobaa nag fañ na ngóoroo roog a dem na korom dinañu ko bàkkal ba pap bàkkal ñu lëg daaru mbay su mbay mbay mu yumbe sas ñun ñoo am chance am ñaari bàkk yooyu muy lëg daaru mbay ak fañ na ngóoroo roog ñu ko am bëriwul de. <laughs> yàgg ko gis noonu. loolu ñamali la. foofu la ñuy yem ak ci Kayré di ancien champion. xaayaan nag ku dégg séeréer. Baba Diaw ñu ngi ñëw ba ci kanam jërëjëf. combat gi ñaari xale ay naatangoo lañu. jéen ñu ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum Père Max maa ngi lay fay xam nga di nuyu ñi fi teew ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di nuyu sam papa xam nga moom laa àndal ak sama grand ñoom Baba Diaw ñoom am di gaay Aba xam nga di nuy sama coach yi ñoom Maaw yëpp xam nga di nuyu sama gars yi sama gars yi bëgg naa leen waaw yéen ma gën a xam waaw xam nga di nuyu Medina bi ma jógee yëpp xam nga am na suñu benn copain mbër bu nekkoon New York yàlla jël ko muy diwaan xam nga waaw ñoo daan nekk foofu tamit mu si doon jàpp di ñu conseillé di ko ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana di ko jaale waa New York yëpp di ko jaale waa Pikine tamit xam nga ay ñoom Mamour gars yëpp maa ngi koy jaale ak sunu sunu coach jaraaf bi la Ousou Boy moom di ko jaale Medina bi yëpp waaw xam nga di woo autorités yi nekk Medina yëpp tamit ci combat bi di wax gars yi ne combat bi seen combat la waaw ku ci mel ni ñoom seex Ba xam nga Messi waaw ñoom Bamba Fall gars yëpp waaw ak autorités yi fa ne yëpp daal canal 4 géeju Soumbédioune ñépp daal waaw maa ngi leen di nuyu boo ñëwee derkele tam gaa yëpp waaw ñoom ñëpp maa ngi leen di woo ñoom Ousmane si xam nga gaa yëpp xam nga ay waa ñëpp maa ngi leen di woo. si ñu maa leen di fay. coono voyage bi moo jaaxal suma baat nii. coono voyage bi moo jaaxal suma baat nii xam nga mooy loolu. mais maa ngi ñëpp di bëgg ñëpp. képp fi teew maa lay nuyu sa tur ak sa sant. kon sa moom ku ko xam ne si yar ak teggin nga ko maa ngi nuyu suma adversaire di ko ñaanal jàmm asalaam di nuyu ñëpp waaw di ñaanal suma sëriñ sëriñ Babacar Si Rabi yàlla nu yàlla yokk ay leeram taas si barkeem di nuyu kilifa diine kilifa aada yi nga xam ne fu mel ni Njaasaan Tiwaawan Yoof Touba Canaba kilifa diine yëpp daal maa leen di nuyu comprendre aset yonente bi sénacé sal bu maa ngi nuyu ñëpp waaw di di waxaat suma adversaire ma koy ñaanal jàmm bu baax di ko ñaanal suma bopp waaw jéen euh, gis naa yéen ñaar ñëpp fonk ngeen combat bi ndax ku ci ne tukki nga su ma la doon laaj ci combat bi moment bii ñu toll loo ma ciy wax. waaw moment bi ñu toll xam nga mun naa ne ñu ngi ci waaw phase de finition yi waaw parce li ñu xaar moo waaw ñu ngi si di liggéey ak sunu coach. waaw ku demee ni ñoom gii ak xam nga sunu coach écrit bi yëpp ñoom Maxu Gaye ñëpp ñu ngi si nekk xam nga di waajal côté finition yi rek waaw di ñaan yàlla. yàlla yóbbu ñu si ak jàmm armée tamit maa ngi profité di ko jaale yaayam xam nga di jégalu waaw di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana waaw weeru koor gi ñu jëm suba tamit weer bi xam naa feeñ na waaw xam nga yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ñu woor yàlla nangul ñu koor ñun ñëpp waaw ñu dugg si bisimilahi rahmaani rahim génn seeg alhamdulilahi rabil alamin waaw lépp luñ jaamu yàlla yàlla nangu may mes ndam nag maa wax yéen ñëpp ngeen ñaanal ma weer bi feeñ waaw combat yi fonk naa ko bu baax armée maa lay jaale sa maman bi nga xam ne dafa gaañu ma lay ñaanal sara bi yàgg sa loxo yàlla xaare ka àjjana fi taw si man fii laa ko yëgee fii nii mais mu ko yëgoon moom naa lijjanti sa numéro woo waaw kon ci ko waxee rek koor gi moom feeñ na te yàlla moom lépp luñ ko ñaan ñu ko kon teg benn weer boo xam ne dañ ko war a woor ñu koy sàgganee non non kon na gars yi préparé rek woor xam naa ne moom sàmbee ni moom am naa ne ñu ragal koor lañ lañ préparé fay seen i bor yi ñu amee woon daaw waaw la demee. mais yéen ñaar da ngeen ñu rusante wala da ngeen di nëbb seen bopp. ah waaw la moom xam ne moom. lay demee day nice. waaw ma ne ko xam nga. waaw day nice lii mooy yoon xam nga ñu joxante cër mais ku ne xam na ne bu ñu duggee ci làmb ji wala bu arbitre génnee suñu diggante moom kenn du ne jën dalal ci woon Quench wala Quench dalal ci kaw jën loolu moom maanaam daal du yomb ah déedéet non non dangaa nee nañ yomb si cere lay dem waaw loolu yëpp te ñu ngi waajal daal combat bu ñu fonk la ñu ne suñu ay mbokk xam nga waaw di ci woo autorité yëpp daal waaw waa Kër Ndiaye Lo tamit ñëpp combat bi seen combat la na ñëpp ñëw xam nga ñu waaw incha allah ñu bëri la parce que ñu bëri ñu ñuy xaar te dañu war a dem nekk si yoon incha allah bu ñëw ñu waaw defaral ko rek waaw dem seeti ko bari ñi incha allah. ah si nee na defaral dem yoonam nee du yomb. kii kër Ndiaro bi mu dëkk sax maa ko fay dalal. dégg ma de moom comprendre sax li may defaral. non du jën cere mi dégg ma de bëgguma tamit ñu yeb ko. bëgguma ñoom ñu yeb ko. ba mu taxaw bu ñu jógee avertissement muy soor dal si ma kaw. na bëre bëre xale ñëw indi xeex bi mu yaakaar moom. loolu laay xaar. jàkkaarloo nag télé bi waaw muy mu yaakaar moom laay xaar sa fan sa yi nag ñoo ma yab mais kii yab moom déggoo ma de. waaw jërëjëf joxante leen loxo. waaw waaw acca waaw xam nga di profité tam di woo waaw ku ñu mel ni ñoom Jéelaani maa ngi koy bëggee l'international ñoom Papi xam nga jilaa boo ji gars yi combat bi seen combat la xam nga di waaw di woo ñëpp ñi nga xam ne daal yéen i jàppale Diène waaw xam nga ngeen ñëw ci combat bi incha allah ñu ñee seen yoon nekku si bu jour ba ci kaw la nekk man ak yow ñoo koy def jabante bi sama diggante ak la du ma la may dara waaw incha allah yàlla ma yàlla may ndam ci sa kaw. moom fii moom xam na ne moom fi ëpp mbooloo mais le jour ji ñoom sax xam nañ ne maay mobilisé fexe leen a tëgg ay tige ñëw waaw man maa ngi woo waa bari ñëpp di woo fukki pence yeeg ñaar yi dëkku lebu yëpp maa leen di woo aw ma seen fay coins lébu yi moom lañ yaakaar di woo tamit su ma mbokki séeréer yi nga xam ne dañ may ñaanal ñu mel ni waa Paki di woo ñi ne mooy waa bari ñëpp autorité yi bari ñëpp li ngeen ñu may jàppale xeebu ma ko waaye dama wax ñu indi seen i moyens jàppale ma parce que comprendre nga làmba man bari ñi dañ maa yaakaar comprendre kon damay bëre ba dee comprendre nga di woo Moussa Ndoye man aw ma eh, nan lañ international aw ma ko Moussa Ndoye international comprendre nga di woo waa Espagne ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk bari fële Espagne gépp waa bari ñi nga xam ne ñoo nekk Espagne ak fépp fan sa coin nekk maa lay woo maa ngi jégalu nag coono voyage bi moo ma jàpp nii moo tax mais maa ngi jégalu ñëpp di bëggee ñi wuy wuy la leen yàlla jagleel maa leen di bëggee bu baax di bëggee suma gaay ku mel ni allah comprendre nga njaw Serigne Abo di bëggee waat ñi nga xam ne ñoom laa àndal bàyyi mbay aada bi këble bis nga di bëggee ñi ma àndal ñëpp allah maa lay bëggee bu baax yow aw ma fay dama lay ñaanal njaw Serigne comprendre nga gaay a asafar bi ñu àndal muy jéey di bëggee jéen di nga siyaar bu wér di nga wax ne ne le jour ji non dina xam ne xale dëgg lay dajal. moom tamit may nuyu yaayam bu baax combat yi moom rek si waxul yaayam rek a waxagul ma koy nuyu bu baax xam naa man la faral sax. ngay bëree ci waaw loolu mu def si ñun li ñu ko laaj laaj yaa ngi tëggal ay làmb xam na bu bu ñu demee tey ba si anniversaire am muy vingt ans de carrière dañ koy santé yàlla bu baax a baax loolu mooy wane ne woon ñu mbëri war nañ mën a gën a góorgóorlu surtout ñun jeunes yi xam ne jeunes yi tey nga xam ñu ngi yëngu si làmb war nañ mën a góorgóorlu bu baax l' essentiel muy li am moom la jour vingt ans li Nicolas yi damay ñaanal sama bopp di ñaan àddama ku si nekk am weer wala jour yi ñoo fekkee le 15 juin bi xam nga yàlla may ñu daw si kaw armée ñu bëre bëre bi animé animé bi dem feere ba samay mbokk yi xam nag di ko jaale yaayam nag xam nga suñu yaay la ñu di ko ñaanal bu ñu tëj yàlla suuf si oyof si kawam. loolu am na solo message bi fort na. amee na ciy topp. moo war a commencé sax di nuyu sama sëriñ Cheikh Abdoulaye Diop boroom xaas di ma ñaanal yëkkati xaalis di ma jox. waaw xanaa loolu neex na li ko wuli di waxee yow caat nga ni du yomb doo xam naa du yomb mais lu mu dëgër dëgër dëgër yow xam nga ni maa la mën buñ buñ buñ desee ci géew rek yow xam nga ni duma sa morom te incha allah rabbi li ma lay ñaan rek vite fait rek jarul sax muy yàgg nañ faay comme saf sama combat sama combat sama combat mësuma génn saako yi mosuma arrière vite fait nga wax di ko rang muy gaaw lay doon rang laa la koy may muy daw da bi ba taay mu leer laa la wax bokk ci rang bi yow dañoo bokk benn maara toog di reer a doom ma man mani sama gaan maa doon kii dafa bokk sama yoon lamb te dinaa ko daan ci kattanu yàlla sañ-sañ boobu ma amoon tey laa ko gën a am moom xam na li ma ko wax caat xale dafa màgg de ba ngay daw ak léegi da daw ba xamatoo foo jëm combat bi combat ko jëlee sama bopp pour rek Lac Rose combat bi waa DJ yóbbul yóbbul ma Reug Reug DJ yóbbul ma Reug Reug annulé daan daanu wala match nul de combat bi gëw ma benn bi félicitation rek laa gëm ak di courage mais li ma jaaxal ñoom ñaar kenn mosu cee dégg muñal te bu bés boobaa muñal dina jub ci kan lay jub loolu yàllaa ko xam déet man man xaw kan mooy daanu waaw ah, man moom xaw ko rek maa ngi lay nuyu. ginnaaw bu ñu sant yàlla ak julli si yonent bi di ñaanal sama pap ak sama tànt te yàlla na leen yàlla xaarajën fir daw si maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sama papa di nuyu sama manager di nuyu ñu ni kalaay di nuyu si di nuyu benn ah, si nekk bi ak sama benn papa ñu naan Baye Blaye Pouy muy papa yi Baye ma yàlla na yàlla xaarajën sama papa sama doom maa ngi yàlla bu baax baax. champion ñu lay nuyu. waaw ñu lay fay. voilà. ñu ngi lay fay Père Max. Uh-huh. di nuyu assistance bi nekk fii yëpp. ak euh, journaliste yi di nuyu promoteur bi Luc Nicolaï. Uh-huh. di ko ñaanal rek. Euh, vingt ans am yi nga xamante ne am nañ chance ñun ñu war ci bëre uh-huh. di ko ñaanal yàlla mu nekk njiglaayam uh-huh. di nuyu euh, di jaale armée si uh-huh. waajuram bi fi jóge yàlla yeesal yërmande ci kawam di nuyu population Médina Fass Colobane Gueule Tapée Centenaire Gibraltar Rebeuss di nuyu waa Ngor Wakam Yoff ak sama mbokk séeréer yi yëpp di nuyu monde entier képp kuy bëggee Gris maa moom man moom teg sama bët moo tax jataay yooyu le 15 incha allah dinañ leeral lañ daan leeral waaw mais moom loolu waxam la rek ñu xaar ba bis ba bu bis ba xam Gris 2 moo doole wala Gris moom moo ma xeex wala moom Gris 2 moo ma dàq bëre bis ba dina leer la demul non loolu kii benn champion d'Afrique la daan non defal nank non aussi waaw Auguste ak Pakala mais Auguste xoolal bi muy bëre ak moom nañ waxante dëgg amul làq-làq nañu wax réalité bi xam la lu ma leen expliqué kii bi muy daan Auguste euh, Auguste boobu pare na si làmb bi muy Pakala moroomam la nañu wax Pakala moo ko mag téeméeri junni yoon te Pakala da ka da daanu ko da buux man Gris 2 ëpp ma doole ba may buux may génne saaku bi bu ma mënee am ndam bu ma ko mënee yàlla naa am ndam xanaa loolu moo jeexal wax ji loolu mënul nekk li mu wax yëpp yow sax dàqu la mënoo ko ëpp doole ëpp ko fit dàq ko bëri loolu daje dégg mais ku mën ci man ak moom yàlla na ko yàlla defal ndam loolu laa am lu may wax